waa xam nga 2011 2012 ñu ngi fi woon bokk ci xeex bi pour euh, ne ñetti mandat waru ab Sénégal bañ ko defee répression bi ñëw ñu boobu ay xale yu bari ci ñoom Mamadou Diop ci bés bi muy 31 janvier ñu fàttaliku naqarliku julli ñaanal ko ñaanal ñi fi boobu ñi fi daan woon yëpp di ñaan nag lii bu mu fi amati ndaxte gis nañ ne troisième mandat fu mu jib ay bakkan wadd nañ muy Sénégal muy Côte d'Ivoire muy Guinée muy feneen ay bakkan yu bari wat moo tax ñu ne puisque ñu ngi jibalaat mbirum troisième mandat ñun ñu artu ñun ñu gàttandu ko ne loolu bu mu fi amati bu fi kenn benn bakkan wadati ndax troisième mandat donc li ñuy tiit mooy li amoon amaat te pour bañ a amaat il faut que ñëpp jóg il faut que ñu artu ci il faut que ñu wax ci il faut ñu dox ci ndaxte nee nañ magu xamoon naa ko magu waxoon naa ko moo gën magu xamoon naa ko. waaw non xam nga euh, vingt euh, déjà octobre lañ commencé woon bañ commencé octobre dañoo bind benn lettre ouverte au président ne ko président ñu lay ñaan. li nga xam ne mooy ñetteeli mandat yaa waxoon kenn du la ci dégg ñu ngi lay ñaan kenn du la ci dégg ñu ngi lay ñaan yow mii nga xam ne yaay gardien de la constitution nga bañ a euh, violer constitution ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaay suñu président nga bañ a topp ñi nga xam ne dañuy dañ lay woo ci loo xam ne dafa nar indi euh, kaw Sénégal donc moo tax ñu jóg wax loolu bañ ko joxee itam ñu jóg. jublu ci euh, société civile bi dem ci syndicat yi dem ci organisation yi dem ci chef religieux yi ne lii ci raam ca ñag ba la jëm nañu fexe ba mu am ndaxte jàmm lañ bëgg bëgguñu benn bakkan rot moo tax tey jii ñëw fédéral li ñu waxoon waxaat président ñaanaat ko ne ko président bul déglu ñu lay wax ne troisième candidature baax baaxul ci réew mi musiba la ci réew mi donc bugguñu benn bakkan rot moo tax ñu jóg ci di ci wax pour ñëpp xam ne lan mooy dëgg dañu bëgg jàmm lalu ci dëgg dëgg indi jàmm loolu moo tax ñu jóg tey waxaat pour que ñëpp dégguñu bëgg loolu pour que nag ñëpp dégguñu dañoo bëgg ñëpp ànd ak ñun euh, bëgg ñi nga xam ne bëgg nañ jàmm ci réew mi ñu signé pétition bi pétition bi mooy rek ñu ngi ñaan président mu présenté wu ñu ngi naan président ñu préserver paix civile ñu ngi ñaan président mu bañ a bokk ci li nga xam ne mooy troisième mandat loolu mooy euh, euh, contenu pétition bi ñu bëgg nag ñetti millions ngi nit signé ko signature bi nag dafay dem ci internet bi waaye itam nañ génne ay kayit yoo xam ne ku mënul dem internet nga mun ko signé ci sa loxo euh, ñu signé ko ci Sénégal yëpp parce que dañ bëgg sax ay cellules la bëgg yoo xam ne ñoo lay créé ci localité yëpp ci diaspora bi nit ñi xam li ñu bëgg ñu signé ko ndax jàmm mais langue Sénégal plan loolu mooy plan d'action bi maanaam tey dañu bëgg dëgg triompher te pour dëgg triompher il faut ñu dégguñu donc pétition bi benn la ci bu ñëpp signé pétition bi ñu jël ay vidéo yoo xam ne dañ koy defar am ne vidéo yoo xam ne génn fare mais yenn vidéo yoo xam ne dañuy wan nit ñi ne nii mooy dëgg parce que ñoom ñoo ñu ne mandat bu njëkk bi 2012 2019 ci la bokk te dañ koy compter dañu ne 2019 2024 mooy ñaareel ak dernier mandat dañu koy compter bu ko jeexee bu mat pare jeexal na ci te kenn du leen ci dégg donc loolu rek mooy dëgg ci man ci affaire bi conscience donc ñu ñëpp xamee ko noonu donc bu ñu paree bëgg nañ dajale ñëpp daje. maanaam société civile yi ñi nga xam ne ñëwaguñu ñu bëgg na ñëw syndicat yi nga xam ne ñëwaguñu am na syndicat yu ñëw pare mais ñëpp ñëwaguñu ñu indi leen ci euh, organisation de masse yi organisation pêcheurs yi ñëw nañu bëgg nañ transporteurs yi ñëw bëgg nañ yeneen syndicats yi ñëw euh, chef religieux yi bëgg nañ gis ndax ñu ñaanal ñu ndax itam ñu jàpp ci li nga xam ne bëgg parce que dëgg mooy alalu yàlla parce que dëgg borom romb nopp te nee nañ wolof nee na fu dëgg réeree ay naafeq fa bari fii ay naafeq bëriwul fi ñu bëgg ñëpp jàpp ci parce que bëgg nañ ñëpp comprendre ne ay moom xeex ak ñi ak euh, combat loolu jëmaloo fenn Sénégal parce que gis nañu Côte d'Ivoire dafa xew Côte d'Ivoire guerre civile am na fa Côte d'Ivoire troisième mandat am na ay bakkan yu wad bëri wad nañ fa lan lañ ci am Ouattara mooy président te boobu léegi dara changé donc li gën Sénégal mooy jàmm nañu jàmm jàmm rek lan la lan ci tëdd